Assalamualaikum mbokk Senegal, ma ñewon tay ci bésu korité bi di bëss bu tedd buy wone njeextalu wéru koor wéru bu gëna tedd ci weer yi ñuy sant nak suñu borom bu baax bi ñu mayee ñu fekkee ko di ko ñaanitam mu yok suturu ci réew mi di Senegal yok ko ci aduna bi yépp